nii xeex buñ ko bañee il faut ñu prévenir seetal Bambilor ñu jox nit mu jël vingt cinq kilomètres carrés président de la république ne loolu dina ci dellu ndax jënd na suuf si jox ko askan ba tey kayit gisaguñu ko dañu ne na bind xaatim kayit gi ndax population yi seen xel dal seen fit dal ndax lii ci bële indi ci réew mi Casamance beneen Casamance soxlawuñu ko liggéeykat yeewoon ca société bii di SRG Icotaf grève de fin ba ñu nekk ba léegi ñoo nga ca tey la ñu ci yem fukki fan ak ñaar grève de faim boobee sax am na ca ñooñ wéetatuñ sa ndax seeni jabar ak seeni doom fekk si nañ leen ca ñu toll ci eh, ñeenti téeméeri ak ñeent fukk ak ñetti liggéeykat yu nekkoon ca googi kër la ñu bëgg moo di juróom-ñeenti téeméeri million yooyu nee nañu kilifay kër ga ameel nañ leen ko di wàllu ndàmpaay ak ay arriérés de salaire gannaaw ba ñu jaayee société ba loolee la ñu bëgg ñu eh, daal di leen koy jox. ak RFM. tàggoog nag yéen xibaaru suba si ci rajo Futur Media juróom-ñetti waxtu fegg juróom benn minutes ngir jàmmi Sénégal na Abdoulaye wadd dellu gannaaw eh, ci coowal candidature yi mu fi doon biral di xam ne ne mbër lay doon ci wote présidentielle yi 2012 yi lii mooy gis-gisu kuréel eh, gu banqaaso ci société civile gi te kuréel googee ay organisation nekk ci naka noonu ay kilifa seen yéeneem mooy fexe lu indi dal ak jàmm ci réew bu Sénégal ñu ne nag xeex bopp askan wi sumb nañ ko ña nga ca biir Alou Seynou Diagne ñu bokk ci société civile daal di yeesalaat seeni engagement ngir sàmm ak aar constitution bi daañu wéyal xeex bi waaye duñu lëngoo benn yoon ak état bi te sore tamit parti politique yi Abdou Mazid Ndiaye njiit forum de organisation volontaire africaine de développement. commencé ñun ñoo jëkk commencé wax ne constitution bi waruñu ko changé yëf yi yaatu ba léegi mooy ñun dañu ne léegi ñun dañu bugg a dajaloowaat seetal suñu bopp fi ñu jublu di ko doxal di ci ànd ni li fi nga jublu ànd na ak suñu jublu ñu ànd ak yow. Abdou Mazid Ndiaye ak ñooñam nee nañu daañuy bokk ci lépp loo xam ne sumb nañ ko ci xare ngir rek amal ak ak yelleef doomi aadama ñoom nee nañu mbir moomu la dina weesu 2012 waaye nag faw mu am ab cadre organisationnel ay ONG ay kilifa diine musulman ak bokk ci catholique kër njaatig yi ak syndicat liggéeykat yi ñiy xaatim déclaration bi di wax Abdoulaye Wade mu xoolaat bu baax a baax candidature am ci élection. mais ñëpp xam nañ ne bu ñu xaaree ba mu yegg foofu diggante bi insécurité politique bi nar na bari coow li nar na bari donc ñu ne président Wade mu xoolaat boppam seet ndax candidature bi fitna bi mu nar indi ci réew mi jar na mu def ko. participants yi ñaawlu violence yi nga xam ne def nañu ko ci alintine ak mboolem leader société civile yi ñu daldi tamit ñaax ñi nga xam ne ñoo faree ci langue politique yi ñu daal di fexe daal ba amal ay élections yu leer te tamit yu dëggu. ci jamono jooju wa benn Siggil Sénégal la fa fas moo di euh, kalaame ji Karim Wade ca yoon toppal moo di ay wor lépp tukkee nag euh, ci ndimbal li mu fi doon sàkku ca l'armée bu euh, France ku jëg politique yi daal daañu wut ay avocat ngir ñu xool Karim Wade li mu def ana lan la ca yoon santaane ci ku def lu ni mel ci fàttali moom Karim Wade mooy euh, ki fi woowoon Robert Bourgi ca nañu ko waxee ci doon sàkku ci l'armée France ñu ñëw Sénégal jàppale si ko gannaaw bu fi askan wi doon ñaxtu ngir ay dog-dog yu courant ci fàttali ñaar fukki fa ak juróom la woon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin rajo Futur Media xibaaru suba si juróom-ñetti waxtu fegg juróom RFM rajo bi gën seen soxla. focus di gëstu bës bi tey ñu jagleel ko plage yi ci euh, dëkk bi fii ci euh, seetlu gi moo di ci ndoxteel vacances yi ba léegi lu mu gàtt gàtt ñaar fukki nit ak euh, ñaar ñu faatu dañoo lap jaare ca faatu ne mekku nañ ko ca lu ci gën a doy waar moo di ci weeru suwee rekk téeméer ak ñeent fukk ak euh, juróom-ñetti nit yu faatu loole gis nañu ne daal lu am la euh, ci euh, maanaam muy daaw dara léegi El Hadj Ndiogou Dieng at mu ne ay doomu aadama yu bëri di lab géej xayma yi ci wàllu woowu doy waar lool téeméer nit ak ñeent fukk ak juróom-ñett lab nañu ci atum di maanaam daaw ci atum 2009 téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñoo ñàkkoon seen bakkeen ci géej gi. ren tàngaay bi di soog a tàmbali wante ñaar fukki nit ak ñaar ñàkk nañ seen bakken eh, ci weeru juin bi ñu génn rek plage yi gën a faat ay bakken di plage bu Malibu nekk ca Hamo Guédiawaye waaye itam plage yu Malika ak tamit plage bu Thiaroye ak Mbao lap yooyu di am ndaxte nit ñi dañuy dem di sangu ji eh, ci plage yu ñu tere bokk na ci plage yooyu ñu tere eh, Soumbédioune Almadies 1 Mamelles Université Le ak tamit plage yu Guédiawaye Malika ak Parcelles Assainies ci geneen wàll plage yi nga xamante ne nag moom may neen nit ñi ñu sangu fa bokk na si plage bu Cambérène Anse Bernard teeru Baye Sogui ak tamit plage bu ngoor la ak tàngaay bi nit ñi war a gën a moytu bu baax a baax lii di plage yi ndaxte bërëb bu feexlu yooyu warta nekk béréb boo xam ne nit ñi dañ fay ñàkk seen bakken El Hadj Ndiogu Dieng ca diwaanu Tëngéej juróom ñeenti plage ya fa benn rek la ñu santaane ngir ñu sangoo fa terewul eh, yee ca des askan waa nga fay dem donte xam nañ la leen ca mën a fekk fu ca mel ne plage bu baata Ousseynou Thiam ñi ngi fii ci plage bu Bata nekk lenn ci juróom-ñeenti point de baignade yi nga xam ne nii moom moo nekk fii ci diwaanu Tëngéej ca place ba nag ñenn dañoo ñëw pour féexlu si waaye ñi ca des nag dañoo ñëw pour sangu si te ñooñu di sangu nag lu ci ëpp doon ay ndaw yoo xam ne yi am nañ juróom-ñett ba jàpp fukki at ak ñaar ñu ci bëri ci ñoom nag xamuñu ne plage bi kenn autorisé wu ko ngir sangu euh, plage bi xam nga ne autorisé wuñu ko xaw ma est-ce que am na ay est-ce que wóor na pour ngeen sangu. wóorul. Hmm. mais yéen ci wàllu lii di autorité yi ñoom nag xam nañ ne nañ risques yi nga xam ne nii nekk nañ ci loolu gannaaw ñàkkuk effectif bi nga xam ne nii kii di ministère de l'intérieur am na ko te mu sar lool lu jëm ci wàllu surveille yooyu plage nga xam ne dañ koo tere. comme nit ñi kenn mënul leen dara. donc te ñi ko war surveiller ministère ak ministère de l'intérieur du ma ko war boobu pour en place les équipes yoo xam ne ku fi ñëw ñu tere la amul nit ñaa ngi fi ñëw di fa donc ñun dañuy obligé yóbbu fa ay nit yoo xam ne dañuy sauver bañaati jamono ji nag ci diwaan bi benn kaawu la rek lañ fi enregistré gum gannaaw sax mébétuk ñii di autorité yi xam ni ren dañoo fixé woon objectif ne du ñu am benn kaawun lii di làpp ci doon jokko ak yéen fi ci Tëngéej di Ousseynou Thiam ngir RFM Ousseynou ku wax géej yi ñuy tere ci dëkk bi xel dem ca géej gu géejawaay foofe Eh, ba maanaam eh, vacances yi door rek léegi ñeenti nit ñu fa faatu jàppal gum nañu ko te loolu ba léegi askan waa nga fay dem mairie bu ville bu Géejawaay ba fi mu nekk nii eh, Kaaraange ga plage ba war defu ci benn jéego Salif Sow. plage bu Géejawaay juróomi waxtu ci ngoon nit ñi ne fa xaas ñi di sport di fubal ña des nekk ci biir ndox mi di sangu. am ñeneen ca ñoom ñoo xamante ni sangu nañ ba noppi di génn ci géej gi Ngoone Njaay ak ñaari xaritam ci lañ bokk. ñoo tamit fait très moo tax ba ñëw sangu. moonte fii sangu fi dañ ko fay aaye. bindee tamit ay mooy loolu. tableau bi luñ ci bind. dañoo ville de Guédiawaye plage interdite aux baignades. palaaj boo xam ne kenn du fi ñi nga xamante ni ñooy sangu aaya bi leen ko aayee dañ koo tànkamlu wante la muy jur bari na bu néewee bu néew am na ñetti nit ñoo xamante ni ñàkk gum nañ seen bakken ci ndorteelu vacances yi ak léegi ay groupe xale ñoo ñu ko xamal ay góor ak ay jigéen yoo xamante ni miin nañ loolu bërëb bi te it soog a génnee ci ndox mi ren gii rek waaw wow tàng li nga xamante ni ñooy surveiller plage yi ak it ay maître nageur ñoom kenn gisu leen fi amuñu fi. maire bu Géejawaay jëlut benn jumtuwaay ngir xeex li nga xamante ni mooy lapp yu bari yu ñu seetlu ci géej gi. wàllum kaaraange plage bi doonut loo xamante ni waa maire bi dugalu gum nañ ci seenub loxo Salif Sow Géejawaay rajo Futurs Médias Salif nguur gu Sénégal signé protocole d'accord diggam ak collectivité locale yi ngir nu ñu yokkee euh, saytu gi ci plage yooye ka ko xam ne moo di ki ñu dénk jokko gi ci biir groupement national sapeur pompier euh, di colonel Abdoulaye Ndiaye mu teg ci ne am nay matuwaay yu ñu jël ngir fàggu gi euh, ñu ko wéyal ngir maanaam surveillance gi war ci plage yi ñu gën cee taxaw ñu déglu ko moom colonel Abdoulaye Ndiaye ci jokkoom ak El Hadji Ndiogou Diène am na protocole boo xam ne euh, doxoon na ci diggante ministère de l' intérieur euh, association des maires ministère de l' environnement ministère de la jeunesse pour daal ñu fexe euh, nuñ ñu jëlee ay motukaay pour wàññi loolu jéye yooyu nga xam ne alors bëri bëri bëri bëri dañ ci ñàkk seen bakkan ñun nag suñu wàllu bopp ñun sapeur pompier bu weesoo formation bi nga xam ne jàngale bi nga xam ne dañ koy jàngal yenn éléments yi nga xam ne miir yi ñoo leen di Euh, embauché ci lu demee ni sauvetage euh, ci ci géej euh, bu weesoo loolu ak sensibilisation bi nga xam ne moom lañuy def bokk nañu ci surveillance su plage yi moo tax donc bu mois de juin xëse jot rek ngoon su nekk dañuy envoyé ñi nga xam ne alors ñoom ñooy spécialistes yi ci yenn plage yi lu demee ni plage de Ngor wala plage yu wala plage yu xale yi di nekk boru lagon pour fexe ba ñiy sangu euh, yem ci benn euh, zone boo xam ne moom lañ leen di euh, tracel parce que zone la boo xam ne dangerewul ak ñu nekk fa aussi pour bu am na ci biir zone boobu ñoo xam ne ñu bëgg a ñu ngi bëgg a ah, ñu mun leen sauver gaaw moo tax alors côté boobu tam gendarmerie ak policiers yi dañ fay dem pour tere leen mais euh, ci yeneen plage yi tamit yi nga xam ne même yu ñu autorisé dañuy tere ah, ku sangu bu bu timis xasee xasee passé moo tax boobu aussi policiers ak gendarme yi aussi dañuy euh, faral di def ay patrouille foofu pour euh, tere nit ñi ñuy sangu sangu guddi parce que mu doon plage bu bu ñu autorisé wala bu ñu autorisé wul sangu guddi dafay dafay dangereux toujours parce que xam nga guddi moom bari buñ ko mën a moytu RFM bitim réew. Côte d'Ivoire la ñu jëm ki di. Euh, général Soumaïla Bakayoko moom la ñu fal chef d'état-major général des armées bu Côte d'Ivoire googe président Alassane Dramane Ouattara mooy ki ko def ñu jàpp ne kooke nga xam ne mooy général Soumaïla Bakayoko hmm, euh, ci FUPUI la bokkoon mooy jiite woon armée bu ñu dippee les forces nouvelles mbirum Dominique Strauss-Kahn avocat Nafisatou Diallo am na ñenn ñoo xamante ne ji Afrique la ñu fekk baax nekk foofe ñoo ngi koy wan si nu jàppandal donte sax ña nga naan soxna si tuuma yam wax ak eh, ay mbiram lu bëri def cee kàcc waaye terewul moom am na ñooñu ñoo ngi koy wéy di gëm la bëgg mooy Dominique Strauss-Kahn ñu daal di koy atte ci jamono jooj procureur ba moom ma ngay wéyal gëstu ya ngir xool eh, Nafisatou Diallo ak Dominique Strauss-Kahn ana kan moo ci am dëgg. Malal Diagne junior nuyuwaat naa la. des di la fay Mamadou Mouhamed. tàggat yaram ay ca loo yàkkali. ñaari tali ja dafa doon jongante démb ak euh, Casa Sport jongante boobu moo doon ndar kap euh, ñaar fukkeelu journée ci wàllu Ligue 1 dañoo tëwoon ak seen diggante ñoom ñaar ndam dem ca ndam dikkul kenn dugal dem dara Samba Keita bii di tàggat ñaari tali gisee nii nag euh, équipe ba daal xale yi am nañu benn point donte sax neex na ko waaye nag bu doon sagoom daal ñu am ca ndam ndax mënoon na nekk Samba Keita ci micro Georges Dethie def nañu match nul 0 à 0 ak Casa mais match nul bu baax la parce que boo xoolee jeu bi ñun ñoo dominer Casa Casa niñ ko xamee woon muy monopoliser ballon bi dañu leen empêcher loolu tey ni Casa doon joué gisuñu ko parce que ñun ñoo créé loo xamante ni dañu contrer Casa maintenant li ci manqué mooy bit bi et je pense que li ci li ñu gën a sonal mooy voyage bi ñu defoon dañu am nañu joueurs yoo xam ne dañu fatigué il fallait ñu noppal leen ñu bëre loolu la ñu comprendrewul pense que groupe bi tey wane nañu groupe bu riche la am na ñu ñu démarré loo tey tey daawuñu démarré mais def nañu match bu baax Euh, ci wàllu waa Casa Sport nag ñoom daal jàpp nañu ni euh, xale yi dañoo football ak seen at nee na ndax équipe bi ay gone ci ne ay tout tànk dañuy football na football boo xam ne seen footballu at la moo tax léeg-léeg ñu am ay njuumte ki ni mel waaye dinañ ko joyante ba ëllëg nu gën a ñoŋ ci kanamu biti Demba Ramata Ndiaye moo leen a entraîné

xam nga équipe de football dafa mel ni daal nit xam nga nit da ngay toog ba yàgg sa yaram du neex nga tawat nga seeti docteur ou bien infirmier mu jox la garab nga faj équipe su mel noonu nag docteur am mooy mooy xool naka lay def pour saafara mbir mi mun de mu ñëwaat man may docteur bi maa ngi si maa ngi leen di faj nag ñu ngi ñëw ndànk-ndànk mais ci kanam rek day yëfi day leer daal safare la ñoom suñu yóbbuyee bal bi ba ci kangaay ñu ànd ak dal parce que football jub te tànk àndul ak gaaw soo gaawee vitesse bi nga ñëwee sa tànk du mën a jub soo ñëwee ba egsi a ànd ak dal changer comportement seet waaye li ko mooy vitesse bi nga ñëwee soo si buggee jouer bal bi dugal ko si camp yi non si biti ngay def rek mbaa mu dal si góol euh, jàpp itam tiraas nañu euh, lu jëm ci wàllu coupe de la ligue quart de finale yi jàpp na nag ni Linguère moo ca dalal Thiès FC euh, Tourékounda dina ca laale ak équipe bi di Jaraaf boobu mooy ba ca gën a neex jàpp ñaari tali itam diggante mu Renaissance bu Dakar ku ca gagné Ndiambour dañ laa sedd AS Pikine moom sédd nañu ko équipe bii di Dakar Université Club. Euh, basketball Sénégal seen gaynde yéen ñu ngi fii ci Ndakaaru ba léegi di fi tàggatu ca Marius Ndiaye ndax ba léegi amaguñu visa te dañoo war a dem ca France fa la ñuy amalee camp d'entraînement ba ndax ñu ne fii mooy ñu nekk ca réewu ay États-Unis ak yu ni mel mhm. ñibbis nañu Dakar di tàggatu amaguñu nag ndax dañu am rendez-vous te rendez-vous bi egseegul bokk na ci ni sa xël waajtaay gi ndax dañoo bëgg teel a daje teel a waaj teel a miinante ngir dem ca euh, Madagascar la ñu bëgg mooy jongante foofu ba jël Coupe d'Afrique bi loola mooy objectif u Sénégal loolu la ñu war a gi la ñu waroon jiital nag ndax xam nga neexi tànk laaj na foo ko jóor mën a dox xam foo jëm da koo gën loolu moo wala fi lébu nanu ko xam mala yow it dem ci félicité wu ma la ndax comme am nañ gan ci kër gi am nga bébé bu ndaw war a kal war fa euh, mënoon naa dund ba dee du ma dégg tonton war fa kal jaajëf yàlla na yàlla guddal fanam RFM <laughs> gëstu bés bi ni ñu ko baaxoo aljuma bu nekk ab taxaw seetlu jëm ci tolluwaayu politique bi ci réew mi El Hadji Assane Gueye Alain Juppé yore wàllu bitim réew ca France la mu bëgg a def budul këf wala fuqarti nuuru na ko lool ndax ñoddi gi Abdoulaye Wade ñoddi waat mbebetam mbébétam gëwoon ñeel ticket présidentiel moom tubaab bi ma nga naan xamul ndax France moo ko wàññikuloo am fippu gi woon ci mbeddi Sénégal na ko leer ne askan wi ñooy borom ndam li du réewam France ca nag mennum réew amul sañ-sañu moo ndam ak réew meneen donte yaay ki ko nootoo ni jamono te ci mbir yi nag France deful lu dul jublu fa ngelaw la uppee ndax seen i kàddu ñoom France gënul woon kawe bu ni lay njëriñ rek ci kàddu yu Alain Juppé ci déglu gi ko pencam ndawi réew France doon déglu mooy ne leeral na delloo ci yoon wi jëflante beeg nguur ak Abdoulaye Wade ndax nag gaaral gam fa def ci wax ja ñeel tukki ba woon bu Abdoulaye Wade ci Benghazi ak kàddu yam fa yónnee woon Kadhafi mooy rekk ci kàddu yi kuy junj borom xel yow tamit nga la sangu bi ngay digle na nga ko def mu mel ni fa Abdoulaye Wade soxlaa loxob jafanduy France ca la ne jalax ñuy jàngat kàddu yi Alain Juppé noppee gunu Robert Bourgi ne juux ba fëgg buntu RFM tàkkusaan na ko xaaju guddi naan ko ndijaay dëkk baa ngi tàkk ana lu France di xaar ak i soldaaram mu ne ko tegal wax joojee ci suuf yi kàddu la ko fi tege waaye boobaak léegi wax waxet gi bi bari lool jot na kon Sénégal bopp ba féete kaw tànk yi république yi taxaw ak jën yi war RFM sociétal ñu ànd ceeg soxna Naata Mbaye tey jii kon la muy waxtaane di lu jara